bu fekkee fu ñu koy néewale doole ma bañ ma ma bañ koo jàppale nañ ko jombale suñu bopp mu fal ñu ak mu ñàkk ñoo fal mu ñu ak mu ñàkk ñoo faale ñu loolu mooy lii yoon li nga xam ne bu ñu ko defee un peu rek am nañu reconnaissance ñi xam ne nit bu deewee pour ñun ñun dinañ jéem a dee pour yow loolu bàyyi leen ko xel léegi nag Pastef li ma wax sànq ne amuñu droit jël benn poste di ko jox keneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maqaamam leneen ak leneen ak leneen bu ñëwee ci moom amul lenn sax lu yàlla yi joxe lu mu jël jox ay saxaaba àjjana jee bu ko yàlla tijjee ña doon ànd ak yonent bi ñooy njëkk a dugg ba noppi kon àjjanaa gën a rëy bi ko yàlla joxee yonent bi ay saxaaba la ko jox bi mu paree ci saxaaba yi ñan la jox ay taabiyaan bi mu paree ñan la ko jox mooy ñi gëm diineem nangu ko sañul sax jël àjjana ji naan waaw naa ci jox euh, ñu ko lépp lay jël jox ñu ko ay doomu boppam ay doomi boppam dafa jël benn doom jox Omar ah jox jox Ousmane kooku génn àdduna mu jëlaat beneen joxaat moo tax ñu naan ko sirnoo rëy borom ñaari rëy Ousmane denc ñaari doom yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam beneen dox bi mu amaat daf koo